ñu ngi fii fi nga xamante si mooy Banjul BCC ñëw nag nar nga xamante si mooy roq maari loolu li nga xamante si mooy flagam bi ñu na ko tuddee nga xamante si ni mooy mëlloo bu neem ak ki nga xamante si mooy top 5 bu taranding li nga xamante si ni mbooloo loolu moo tax gars yi li nga xamante si mooy flag bi ànd seen li ki nga xamante si mooy opérateur si kàddu gi seen mbokk seen xarit Ousmane si caméra bi Ousmane kon toom xam naa dañ des si biir incha allah roq maari loo diggante top ak nga xamante si mooy mëlloo ndax ñoom ñaar ñëpp war naa la dem bokkan bis ñoom ñaar kenn gën a am ndam te cinq ndim la jot lu mujj daan ki nga xamante si nii mooy Modou Lo séeréer booy lu mujj daan gars yi ni ngi présenté li nga xamante si nii mooy flag bi fii fi nga xamante si nii mooy si office Roq Malick Lo mu nekk loo xam ne am solo. di jiital si nuyoo bi nag euh, Lot Mayores ajaratu Roq Malick Lo euh, ndax yéen ñi fi nekk yéenay moom moom mooy yéen. Euh, ñi fi teew nag mooy WRG Gambia Wrestling Revival Group euh, di yëngu ci dooleel lambi Gambia rawatina ndaw ñi di tëgg ay event yu am solo this time around nag ñu jël grand combat muy combat bi gën a mag tey mën nañoo wax ni Modou ak ballagay Gaye mën nañoo wax ni France ak xoyantaan waaye ci gattal pour ngeen gën a understand li ma bëgg wax mooy event bi combat bi mooy combat bi ci gëna a rëy mu dox ci diggante Modou ak ki ñuy wax top 5 ñu tuddee ko Lord Mayores muy grand combat war a am Sunday ci Serekunda West mini stadium muy event boo xamante ni bii event la boo xam ni dañ ci bëgg a njukkal jigéen ñi ndax ku ne xam na ni euh, weeru match weeru jigéen ñi la. te ku ne xam na ni Lord Mayores Rugi Lo ci jigéen ñi rek lay yëngu moo waral mu créer li ñuy wax la muy mbootaay goo xam ni barki démb gis nañ li mu def fii ci Essew def ko ci yeneen i dëkk ci biir réew mi ak yeneeni gox-goxaan kon suñu jëlee cër bu réew bi fas yéene ko cee sargal bis la boo xam ni bis ëpp ko doole ci réew mi ba tax na ñu ngi leen di yóbbante bëgg nañ mu teew ndax bëgg nañ koo sargal ba Gambie yëpp xam ni kii jigéen la ju góor jigéen la joo xam ni Gambia moo ko ñor waaye jigéenu Gambia yi ñoo ko ñor ndax guddeem bëccëgam subaam ngoonam lépp spend na ko ci réew mi rawatina jigéen ñi kon bis bii dañu koy ñaan lum ko mën a fekk ak fu mu ko mën a fekk ñu ngi ñaan teewaayam ndax teewaayam moo ñu gënal lu ñu mën a am ci moom ndax dafa am cër ci réew mi dafa am taxawaay ci réew mi te loolu bëgg nañu njabootu làmb xam ko ci moom làmb nag gisaguñ ko ci kon bu ñu ko tuddee grand combat jàpp nañ ni first time in history dinañ ko gis ci làmb te foog nañ ni event bii dinañ ko ci gis ndax yàgg nañu ko tuddee gisuñu ko waaye bii daf cee raw ndax dafay weeru jigéen ñi te muy kuy dooleel jigéen ñi ku support jigéen ñi muy bis boo xam ni bis la bu rëy ci làmbi Gambia bis la bu mag ci jigéenu Gambia ndax kan lañ ciy sargal ñu ne lot mayoress ajaratu Roqi Malick Lo loolu war naa tax Gambie gépp waaj fu mboolem refe la nekk ñoom ñëpp ñu waaj fas yéene ñëw ànd ak lot mais ñëw toog fi ñu war a toog ñu sargal ko bégal ko ñaari mbër yu bëree ci kanamam loolu mooy sunu sac ñun moo tax ñu jël flag bii tuddee ko ko ñu ngi leen di yóbbante ci moom nag teewaayam la ñu soxla ndax weeru jigéen ñi la tey drapeau bi jigéen ñi la ñuy sargal ci weer wi jël cër bi ci gën a rëy nga xam ni mooy grand combat dara jaalee ko ko. kon yóbbante nañ leen ci moom nee leen ko Wrestling Revival Group muy Double RG flag bi ñu la tuddee ci weeru jigéen ñi muy maaj di sargal bépp jigéen jël la nag jiital la ci sargal googu nga jiite bépp jigéen ci bisu sargal boobu sa teewaay lañ soxla kon ñu ngi tënk kàddu yi ma jox mu du Alpha bu amee lum ci dolli rek mu dolli ko ci su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a ko fi teewal kenn ci yéen jël microphone bi wax behalf on mayoress bu Banjul su ko laay jox microphone bi rek kuy wax asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñu fi nekk yëpp seen tur ak seen santa di jëlee nuyoo bi nag di ko teg ci suma boos di suma yaay muy mayoress def nii lu baax la mayor du dee tam xam lu dara te ku baax la mbaaxam soo ko buggee wax fii sax dag fee yaaga mais loo ko tuddi rek daf ko jar so yéen loo leen def nii lu baax la te incha allahu rabi mais dina ko yëg te su ko yëgee tam di kontaan. xam naa ne dina def délégation mu ñëw fa. parce que moom moom du la tax xam lu dara mais man boo ko dee ooyee turam yaa booy laa ko dee ooyee moom yi moom yi laa ko dee ooyee te ku baax la xolam bi dara nekku si xool bu baax la amee. maa leen wax lu noonu ne leen mais mu xol bu baax la amee maa koo gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla fu mu bugg a dem yan na ko fa yaa yóbbu ci barke salaatu faati barke yonente bi bés bi moom incha allahu rabi ñu ñaan yàlla yàlla may ñu fan bu gudda ak wér bi yaram ñu fekkee ko ak jaama su fekkee defee moom incha allahu rabi su fa mënut a teew sax dina yónni te dina am ah, di ngeen am mbooloo bu bari boo xam ne dinañ fa teew incha allahu rabi ci soobee yàlla maa ngi emal fii suma kaddu nag di leen gërëm di leen sant nag yéen mi yëpp ñaar ñaari mbër yi nag yóbbante nañ ma yóbbante àq la te comme dama koy faral di wax ndax dañu ko tàmm ca euh, mayor of KMC euh, ñu wax ko ko ëllëg ñu gis vidéo yi dinañ ni Oncle Kara dañ ko yóbbante ci mayor bu Banjul mu dem waxu ko mayor neewu fi waaye yéen a fi ne ñaari mbëri ñu ne soxla nañ ndimbal ci moom soxla nañ mu jëndal leen ay tickets yu bari pour seen fans yi mën a génn loolu lañ soxla ci moom ñu ngi koy ñaan mu jëndal leen ay tickets ñaari kamu mbër yëpp loolu mooy seen yóbbante ci meeyo kon na ngeen ko yeggale meeyo ni ko ñaari kamu mbër yii war a bëre flagu meeyores bu Banjul ñu ngi koo ñaan support ak ndimbalam pour seen fans yi ñu mën a génn ñëw support event bii nii. loolu moo doonoon kàddu yi kon su ko defee Mamadou Alpha ñu président flag bi ñu jox ko ki nga xam ne mooy mooy nangu flag bi ci turu meeyoo bu Banjul su ko defee rek ñu lem ko ñu jox ko ki ko euh, représente waaw ñu ngi ànd ak Opera TV télé bu mag bi waaw bëgg titi waaw président ngi noonu waaw mu ngi noonu gàddu ko leeyam li noonu gars du ko leem rafet na. nuyu baax a baax nuyu opérative yi bu baax si euh, ñëw fi ñoo xam ne ñëw ñëw si euh, président flag yi Rohey Malick Lo di grand combat bi mu nekk wéy jigéen te jigéen Gambia soo sagal nag foog nga sagal Rohey noonu lu mu liggéey si Gambia bi la xanaa nga win capital of the city of the Gambia fi win ñaari ñaari yoon élection muy nekk mayoress kooku nekkul euh, caaxaan moo ko moo ko fi teg liggéey moo ko fi teg kon tey su ñëwee di ko sargal si làmba mais aada ak cosaan boo xam ne foo boo xam ne ñëpp ko moom mooy suñu aada suñu cosaan loolu la si am ko jëlee. ñu gis ngeen jël grand combat bi jox ko Rock Marlo. waaw loolu la xam nga tamit euh, reynaw Gambia ah euh, soo doon xool jigéen yu gën a def e, e, e, excellent ah jigéen yu gën a liggéey jigéen yu war gën a delloo njukkal kenn su génne roxi Malick Lo te ñu gis ne yàgg naa jàppale làmba na fii amati falaak amati falaak da ngay dégg mbëri Banjul yi ba si mbëri combat am ñoo xam ne sax su gaa yi winee su daka yi amee combat da si day jàppa kon ku bàyyi xel euh, làmba la euh, te loolu loolu moo tax porte tamit lu liggéey si si réew bi la te dafa ne danoo delloo njëkkal njukkal jigéen Gambia te tamit wax dëgg yàlla euh, moom tamit lu mu fi liggéey fo ñun tamit gën koo yokka te su ko yokkee Gambia moo si wit ne ko on na tey ku dem ba nekk prisonnier rafe rafe la ah ak rafe la du mu mel si aduna bi ñu ne président seen président bi gambi gambien la loolu rek doy doy ndam Bouga Titi moo tax ñu ñëw tey doole ko njëkkal Bouga Titi. Mm-hmm. am na solo ñoo xam ne ne Aji na woote euh, lan la leen xaar li nga xamante muy dimanche. waaw li ñu leen xaar Bouga Titi Aji ñëpp xam na si làmba ji. Euh, yaakaar ne léegi bu diggante 2014 ba léegi ñu ngi tegal si làmba waaye event bi dafa nekk event bu bu social la la la la nekk ñu ngi koy wàcc ñu koy wàcc lu ñu mënee si suñ su suñ suñ lu ñu mën ah ngay ñaax tamit axlu làmba ah ñu ngay ñaax làmba ah ñoom ñëpp ah ñu teew incha allah amateurs yi ak fans bi ñëpp teew euh, si biir si si ak salaam jàmm ak salaam see leen see leen see leen ñaan bukkati ci mu nekk la may nekk last event bi foofu ñu jël break si weer koor bi on dit ten wala élève bi sontu laatat ah kon laas événement si weer ko bi ñu ngi ñaax tamit ñëpp teew si jàmm ak salaam képp ku ñëw di nga gis te pare di lu fa yóbbu bi ambiance ak lépp lu a jëmale làmb kanam ak lépp luy tara làmb incha allah bu soobee yàlla suñu foofu di nga fa gis bu ko a am na solo lan ngay wax nga may yàgg yàgg ko wax Opera TV ji ba léegi day leen révolutionniser làmb ji si wàllum caméra. time boobu nit ñi ay téléphone lañ daan jël di ko filmer di ko seen. Euh, seen seen seen seen challenge si te du dee leer lu gis opération bu ñëw teg teg plateau ba tey ñaata ñuy teg plateau si la même Gambia na lu euh, ñëw di andi caméra andi ba tey ñu bëri di ko di ko di ko roy euh, lamba lamba ñu gis quality ko ko opération di defee loolu dafa yóbbu lamba si beneen level dafa tax tamit média yu bëri tamit jàpp ku ñëw si lamba rek di nga annual camera ba correct tax ba ba ba taxal tey làmb ji yokku na in term of ah in in in euh, si wàllum caméra euh, bu tëddee. ñu ngi gën a ñaanal yàlla euh, yàlla def ngeen passé level bi ngeen nekk dem ba nekkat digital télévision dem ba nekk sa télé bu ko tëddee. am na solo na solo